waaye autorise loolu waaye maa ngi autorise xoola montagne yi ñoo liggéey tali yi lañ defar si ay montagne cent kilomètres par heure uh, mi ngi nii bande deux uh, bande de circulation benn bande de circulation gauche droite interposé xoola moom montagne yi la montagne yi la ñuy bënn génn si ay pont waaw ah, maa ngi autorise jëm Italie xoolal xoolal xoolal may daw lii dafa garaw ñii dañoo liggéey parce que sëñ Bamba ñii te nañoo sama suñu politique saa yi xaalis bi leen jox ñu di ñu defal ay tali cent kilomètres deux cent kilomètres di ko baaxoo di ko baaxoo Allemagne deux laa jóg boobu ba léegi maa ngi daw tali amul benn tali bu bu yambare tali yëpp a neex te tali bi tàmbul fenn de continuellement gis ngay lii fois yi dem dëkk ak dëkk alors moom mu dañuy dañuy daw daan doon daw ay cent soixante cent soixante dix tali Allemagne xoolal ko rek daa neex baax daa fit waaw kay li ñuy yu mel nii rek xam ne da ngay jóge da ngay dem Mali jóge Mali dem Burkina no stop amul sax ay frontière frontière c'est dépassé quoi c'est waaye balaa ngay wax waxi Mali da ngay wax sax jóge jóge dem dem dem dem Ziguinchor sans problème wala jógee Dakar dem saint sans problème loolu mooy njëkk a lijjanti sax wala Tambacounda xoolam rek tali si ay montagne lañ ko dugal na ñoo xam ne ñu ngi si suuf si suuf garab yi nii si ginnaaw si suuf ñoom ay garab rek la ñuy gis xamuñu ne sax fii ni oto yaa ngi daw xoolal kii de pause yi moo bëggoon pause fii laay génn taxaw pause ak pause bu yàpp xoolal xoolal gis nga fii fu ne nii si pont laay daw nit ñi si pont tolloog montagne temps nag neexul ba neexul suñu réew yi jox nañ leen xaalis pour ñu defar yii de ñooy lekk xaalis xoolal ñu ne ma wàññi soixante dix nga war a daw wàññi oto bu ndaw warul double oto nga wàññi parce que boo respecté respecté vitesse yi moom du doon problème eh, mais boo ko respecté wul moom chaque jour problème Kunnen hoor, dat leidt niet naar. léegi mën a def dix heures de temps si tali bi te sa yaram du métti mën a def vingt quatre heures si si bi sa yaram du métti mais ay Sénégal boo ko defee dañ lay dàmp de maa nga ñëw rek tooy. ñëw rek feebar gaa yi naan moom du mu jógee fële ba léegi daa feebar fekk na yoo taliba la xoolal fii amul parce que waaw ngeen yi liñ continuer li mooy liñ continuer liñ bi mënu ma ko jéggi ñoom ñu ko jéggi lu leer ngay dawal ñaar ngay jënd vignette vignette ngay jënd daal di dawal amul kii amul péage boo duggee Italie fay péage Autriche ak euh, Suisse boo fi dawal ñoom vignette ngay dëkk vignette ngay jënd am nga droit dawal koy jàpp nga fay as tuut dawal dawal confortable génn na si montage bi léegi xoolal traité non tubaab ñoo liggéey ñun nag tra kii lañ indi terre yaawul si benn montage terre lañ ñu bënnal barki dér naan ñu la terre feesee va et vient moo tax Modou Modou yi di mer Modou Modou yi mere Macky Sall jéppi tali yi eh, eh, ñëw fekk Ila Touba gars yi si la ñuy kontaan nga xam ne ñun développé gu ñu ni laa lay wax waxtaan woon dëgg sa lépp li may wax sax maa mi ngi génn parce que woon boo ma sama bëri daf sonn naa sax parce que fii ku fuuraam li yëpp da ngay wax ba nga xaar xaar xaar day mel ni fii si tunnel laay dugg quatre-vingts kilomètres par heure chantier chantier laa ko def waaw tunnel la dama yàgg daw si tali yi rek <laughs> tunnel bi ngi tudd waa na góor nga xoolal beneen tunnel la góor rafet nice lii dafa neex ñuy tali ay ay ñuy bënn ay tunnel ci montagne moom faalo ñu tunnel yi ñëw foofu noonu toujours rek defar tunnel wala ba ñaari tunnel yi teg loolu loolu ñuy liggéey nañ ci ñu billaay xaalis bi xaalis seen xaalis bi war a dem si population def nañ ko si population foofu ñu foofu ñu